salaamaaleykum salaamaaleykum man la Bamba Niang cameraman Dakaractu at bu bees bi ñuy dugg maa ngi ñaanal yàlla ñëpp def am jàmm xéewal ñu dugg seeg bisimilah rahmaani rahiim génn seeg alhamdulilah rabbil aalamiin maa ngi taxaw sama confrère ñu ko wax Cheikh Omar Gueye Cheikh Omar lay wax si at bu bees bi. waaw Cheikh Omar Gueye Dakaractu caméraman maa ngi leen di souhaiter bonne heureuse année 2020 ñu dugg si bisimilah rahmaani rahiim génn si alhamdulilah rabbil aalamiin maa ngi leen di souhaiter mes meilleurs vœux yéen ñëpp.